yonent bi ne xanaa kon ngeen raj ma ko ñu ne ah déedéet baax na kon soxlu parce que ñun dañu déggoon ni yonent la bu yàlla yónni rahmatil alamin waaw waaye rahmatil alamin ba doo yar xam nga am na koo mësa waxtaan waxtaanal maa ngi koy wax sëriñ Babacar sama mag dañu dajee ci euh, dañu dajee ci euh, Daarul Bayba ci Funduq Royal Mansour Méridien ñuy waxtaan li muy wax daal xam naa ni intéressé na ma moom it na ko waaye anglais bi muy wax dafa gaaw trop trop trop ci man mais li ma jot a dégg ma ne xaaral moo Aziz bi nga xamante ni mooy yor restaurant bi ma ne ko baal ma Aziz yow comme dégg nga anglais trop nga ngay traduire maak moom laaj moom lan la mu ne musulman la pourquoi mu nekk musulman ma mu ne pourquoi yàlla question bi li li tax ma indi mooy dana yàlla lu tax mu bind par di ko ne Aziz ne ko li ma koy njëkk wax mooy bëggoon naa trop Euh, maîtriser anglais bi ni ma ko war a maîtriser pour mën a wax ak moom ci niveau bi bi ma bëgg a waxee ak moom mais du wees waaye comme yow mën nga wax moom mu dégg la ne ko ndax doomam bi mu jur moom am na njaboot mu ne laaj ko ko am naa njaboot mu ne ko nee ndax doomam bu ñëwoon fekk maak moom ñu toog ci canapé yi di reer doom ji tuur fii ndox lu mu koy def mu ne ma da koy mbaj nee na ma ne ko yàlla it bu la santee dara nga bañ ko daf lay duma sa doom ndax da nga ko dóor pour bañ ko mu ko yàlla tam dóor la pour bañ la danga nga dëgër bopp rek te pourtant mën na la baal léeg-léeg sa doom daf la ma ne ko noonu nga koy attee rek yàlla bindu nit ñi pour dugal leen safar déedéet li yabluwakum ayyukum ahsanu amala nga gis ni nit mooy xatal boppam mais yàlla xatalul xatalul dara inna allah wasiun alim système bi mu ñu proposé moo gën a yaatu système bi nga xamante ni xel a ko tëral bi ci des mooy suhulatul inqiyaad bu loolu amee bu nit ki xaakim bi xamee ni wala euh, président bi xam ni yàlla moo bind na bàyyi xel yàlla lu muy def jiital ci yàlla njaboot gi topp ko du leen të ndax yàlla mooy nooyal xol yi waaye boo nekkul ci li yàlla bëgg shaab bi wala mujtama bi ñëpp dañuy fetteerlu moo dal rabiul arabi dinañ ci ñëw bi ci des mooy alwasatiya l'islam dafa laaj équilibre l'islam bëggul kuy buntu xataal l'islam ñëwul pour terroriser kenn dafa équilibré comme ni ñu ko waxee moo tax yàlla wax ci euh, alquran ni wa ko jaalnaakum ummatan wasatan waaw ngeen di xeetu équilibré waaw li takunu shuhada ala naas ndax yonent bi dafa wax ñun ñu seede ko ñu fekkeek jamonoom mu ne ndax jotal naa ñu ne ko jotal nga kon seede nañ ko mu ne yàlla kon seddaal ñu ñu dellu siwaat suñu biir ñun ñaari mbir war ñu seede bi ñu war a seede ba pare war a def iblaax waaw moo tax ñu nekk ummatan wasatan sumuliya bi mooy matale gu lislaam matale gu mu làmbe dama ci gis wax bu wax bu wax bu tabaarakallah bu rafet bu ci الشهيد حسن البناء وخ عن أبعاد هذا المش... هذا هذا الشمول في رسالة الإسلام فقال وأجاد من إنها الرسالة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن وامتدت عرضا xatta intadamat afaq al umam wa amtaddat umqan xatta stawaabat shuun addunia wal axira mu ne lislaam dafa ñëw làmb goxu jamono yépp lislaam ba keroog ba keroog yàlla di lem suuf système bi mu bi mu ñu bi proposé mooy dox boo ci génne yaa ci génne waaye moom la yàlla moom la yàlla reconnaître yaatu na ba làmb les cinq continents ndax ñoo am profondeur l'islam dafa ndar képp àdduna ak àllaaxira waaw loolu mooy sumuliyatu bi mais ci biir loolu l'islam dafa am ay règle yu mu tëral règle yooyu bokk na ci assura diisoo muy concertation comme ni ñu ko jàngee ci français te mooy li nga xamante ni l'islam sharia waxu ci wala amul nassun shar'iyun loo xamante ni wàcc na ci ñu war a toog diisoo seet nan lañ ci war a doxalee doxalin boo xamante ni du wute sun du wuteeg sharia du wuteeg na doxalin boo xamante ni daf ñuy jëme ci njariñ waaye du ñu indil lor moo xam dafa làmb ci projet parce que sagam nga sagam la bëgg kon nit ki boo bëggee sagam bu la laajee génneel li gën xalaat ci yow li gën ci sa xalaat nga jox ko waaye bàyyi ba mu def ba noppi nga génne ah moom kat nii la mel xam nga rek kilifa la moom nii lay defal déet noonu kenn du ànd ak noonu kilifaam bi ci des ci suura mooy as-sunna yéen saa sallam jël nañ ci abi hurayra mu ne yéen saa sallam kenn daq ko woon a def concertation ak ay saxaabam ku ko fonkoon la wax jële nañ ci sunan ibnu maaja li mu wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida stachaara ahadukum axaahu fal yushir bu la sa mbokk jullit laajee xalaat ci lu mu bëgg a def wala lu mu bëgg a dugg jëlal la nga xalaat la nga xalaat ni moo gën a baax te gën a jub nga dimbale ko ko te njariñu concertation ci l'islam système politique bu l'islam dafa bari ay njariñ parce que juum daf ci daf ciy néew xilatul xatay fil amril mashhuri fii bi ci des mooy dafay fegal société bi déséquilibre ak perturbation bari na ci ay njëriñ la ñaar yoo lañ ci talxiis suruut yi nag dafa bokk ci al adala maanaam maandu te ñuy diisool na nekk ko maandu bi ci des na am notion ci sharia ak sunna boole ci nag bañ a nekk rek sëriñ boo xamante ne day naan ndoxum bu sedd tëju ci biir néegam du xam li xew ci biti la budda an yakuna yaani lahu al ilmaam bi umuri shariati al islaamia ma fahmi al waaqia dafa war a xam li xew ci jamonoom liy dox ba ci kilo ceeb lu mu jar waru ko umpale ba ci gaz bi li muy jar waaw lépp kilifa gi war na ko xam waaw maanaam ki ñuy diisool tamit war na xam loolu ndax bu ñu ko laajee xaat mën a wax ci kaw loolu da gis ni amul benn njiit bu mën a doyloo xalaatam rek wala njiit bu ëpp mën a diisoo déedéet diisoo dafa nekk ruknul asaasi yi ponk la boo xamante ni bu fondamental ci système politique bu lislaam boole ci mu nekkit it qaayida jalila min qawaidi xusni siyaasa c'est une règle lumineuse ci sharia maanaam bu ñu dee wax système politique bu fekkee am na taar mbub mañ koy solal mooy concertation mooy diisoo waaw mooy taaral politique mooy taaral système bi am beneen règle boo xamante ni ñu ngi koy tuddee qaaidatu la darar wala diraar bul lore bul nangu ku lor waaw wa hiya qaaida azima bal min acdami qawaacid alfiqhiya alsiyaasiya alsharciya alqaaima ala manci darar qabla wuquuci waaw bañu ci sax ba jéem a fekk lor balaa muy ñëw ñi ngi ci nawet xam nañ ni taw bi mën na bari te loolu lañuy yaakaar ndax bu nit ñi ne taw bi dafa bari yàlla ñun rek taxul muy taw jur gaa ngi fi buñ ko soxlawu soxla nañ ko xam nga yàlla boo koy ñaan ba mu lay jox nga croiser les bras toog du ko sànni day seet ku ko laaj mu jox ko kon ndox bi soxla nañ ko waaye li fekkee ni lim ñuy jural ci lool dafa bari war nañu jël ay matukaay. ndax fan yi ci ginnaaw dama gis ci télé bi am kuy jàmbat ni nawet bi ndox bi mujjee wàcc dafa ñëw ba dugg ci këram ba inondé ko mu ne ba léegi sama doom bu asamaan xiinee sax ñu jooy mais ndox loolu taxul yàlla di ko wàccee wa ja'alna min al-maa'i kulla shay'in hayy waaw bu demee nag ba xale yi di jooy bëggatu ñu mu taw musiba am na kon nag ñi ngi ñaan gouvernement bi loolu nga xamante ni ñu ngi ko am ci ay mébét pour ndox mi ak tamit seet ñu dimbali askan bi yàlla na ci yàlla taxaw te jàppale leen ci ah loolu lañu ñu war a mën a def parce que tamit duñu ñu ñaan tamit ñu échec ñun dañuy ñaan mooy ñu jàll ak jàmm parce que itam suñu ëmb lañu yore waaye ku jàpp sa bopp ba ne da ngay toog sama yoon nekku ci réew mi bu yàqu yow la yàqul parce que il faut nga yëg nga yëg sa sa citoyenneté ci biir réew mi xam ni ci nga bokk waaw ah, nga gis yàlla wax ci alquran ni wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribaatil xayli turhibuuna bihi aduwa allahi wa aduwakum ci suurtu anfal ci jël ci matukaay rek nga gis ni yàlla foofu waxul li tuxaaribuuna bihi aduwa allah aw li tuqaatilu li tuqaatiluuna bihi aduwa allah waaye dafa jël kalima raqiqa baat kali baat bu suuple bu bu woyof muy lu tu yaani al euh, tarhib nga gis ni fi siyaaqi euh, fi siyaaqil kalaam dangay gis ni loolu li ci yàlla jublu mooy man man wuquu al qitaal wal xaylu la bayna al muslimin wa bayna safki dima li yàlla jublu ci tarhib foofu mooy fexe deret bañ di tuuru fexe ni ñuy wàññee xeex yi euh, boole ci quwa foofu mu wax min quwatin du quwa jismiya du quwa adaliya mais quwa fi thabaat quwa imaniya al quwatu fi suluk euh, quwa tasaamux maanaam am kàttanu jéggale di baale euh, nekk à la hauteur ci lu mu mën a doon julli bi dafa war a am tolerance dafa war a dal moo tax waaye du tee itam aaya ji di ko sant mu am li ñuy wax amilu rada maanaam war nañ ko respecter dara moom jullit bi waaw bu dee ngànnaay la baax na bu dee xam-xam la baax na lu mu mën a doon waaye daal na am loo xamante ni noon bi du daf saa yu jógee rek dal ci kawam comme ni Israël di def Palestine kon nga gis ni laaye ji wàcc na ci yem saa salaam ci Makka te xeexul ndax li udina lilladina yuqaatiluuna bi annahum zulimu bii moo ko jiitu te bi mu ñëwee yenn saa salaam toog na màkk 13 ans yoo xam ne xeexul waaye dañ na ko jëlal say matukaay buñ la bett nga gis ni kon moom nitu jàmm la ba tax na euh, alxarakat al yi ngay gis lu mel ni bokk aram ndax dafa nekk min qadaaya saa Boko Haram ci awsa mooy taxrim al taalim al garbi aw thaqaafa al garbiya maanaa nañu fexe ba li ñuy wax euh, thaqaafa al garbiya wala seen njàngit muy tubaab yi wala anglais yi wala occident bi daal culture am soxlawuñ ko buñ ko fi jàngale ci biir réew mi ci biir Nigéria mais loolu njuumte mënu ko weesu yow kii nga xamante sa noonu la maîtriser sa alquran sunna nga gis léeg-léeg tubaab boo xam ne ñu amoon nañu kowet benn benn français boo xamante mi ngi jógee Grenoble université bu nekk foofu di jàngale ci usulu diin te nekkul taaliba na Muhammad waaye chrétien la waa kii yitte bi mu def ba am ko yow nga ne léegi doo xam dara ci culture am léeg sax ñu ñëw ndar kepp la ci ci xalaat walla ci gis-gis doo xam loo leen tontu ndax dañ la ci raw dañ la ëpp yitte mbir mi moom yitte la rek moo tax li na Cheikh di wax naan fal tajaalan hammaka hamman waaxidan takun lima tatlubuhu mushaahidan nit dafa war a am yar volonté ci moom war nga xam lugal abraniya war nga xam langue bu ne jullit bi war na xam lu ne waaw bi war na jàng war na xam lu ne te ñoom ni ñu bëgg a déggee bu fekkee loolu mooy seen mabda mooy seen principe juum nañu parce que laay yi nee na dañu fexe tuur deret bañ a bañ a am waaye rey bay rey sa mbokk jullit ndax lan nee nga yaa ko ëpp pas-pas yaa ko yaa gën a dëggu ci diine foo ko teg ndém yonent bi salaaw sallam ci ci rasu saxaaba yi am ku ñu dàq mu làqu ci garab ne dugg naa ci diine Muhammad gëm naa yàlla ñu rey ko ñu dem ci yéen saa salaam wax ko jàpp ni def nañu njàmbaar ñu ne ko moom kat dafa tudd baatu seede rek ndax ragal yonent bi mer ne leen hal laa shaqaqtum hal laa shaqaqtum qalba ndax yéen a xar xolam ba xam ne nekk ci biir kon kooku bëggul rey kon ku ne njabootam nga nag nekk ci biir dëkk boo mën a ne ci Nigéria wala Mali di profaner ay ay lieux de culte c'est pas loolu jaaduwul l'islam bëggu ko yonent bi yeb la guerre muy xare muy jihaad ci yàlla daan na wax ni bu leen ma reyal mag bu leen ma reyal xale bu leen ma yàqal ngàncax bu leen ma eh, eh, yàqal kanisa wala diir yi ndax lâcheté la nit du ko def jullit du ko def kon da la bu ñu war a seetaat te mi ngi law nag jullit yaa ngi koy seetaan waaye mi ngi law waaw nit boo demee ba ñëkk lu ne lu la neex ngay def te fekk li la njëkk loo yaa sa bopp mooy da wàcc ci yoon bi ñu la teg bu dee ci ixwaan muslimin les frères musulmans bi nga xamante ni Hassan al-Banna moo ko euh, fonde su ma juumul euh, man andamu ilayhim ka muslim waaye dul ni euh, dafay yokk sama lislaam déedéet ndax laata may xam ixwaan muslimin jullit laa ba waaye nag li ñuy xeex ñoom dañu yàgg sonn coono gi mooy dañu yàgg miin régime militaire depuis 1951 Gamal Abdel Nasser ak Anwar Sadat ba ci Moubarak te Gamal Abdel Nasser ci ixwaan yi la bokkoon mujj gi bàyyi leen dem ber mbiru boppam euh, Sayid Qutb yaakaar naa moo def fi dalal Quraan dañ ko rey boroom xam-xam yu bari dañ leen rey ci ixwaan muslimin sonal leen te ñoom kenn ëpp leen xam-xam kenn ëpp leen alal fi ñu toll ci biir Égypte mais teewul ñu ngi leen di sonal di leen di leen def yu méttee méttee métti dégg na Xasan euh, al Banna euh, rahimahullah bi muy bëgg a fondé lii gis na Cheikh Mahamadul Xaafis al Misri waxtaan nag moom ci mbir mi bi mu waxtaanee moom mu ne ko damay bañ deret tuur deret bu deret bu bari di ci tuuru waxoon na ko loolu ci jamono nga xam ne rek tabaarakallah góor googu borom borom fatxu la. Euh, bi loolu jàllee ñoom mësuñu jëfandikoo unf ndax xam nañ ay borom xam-xam lañ te xam nañ ni al unf laa yuwallidu illa al unf waaw safara moom boo ko bëggee fay ndox mais safara nga xëpp ci safara day gën a tàkk rek mais li leen dal du asmatu manhaj azmatu fikr la parce que tamit yàkkamti baaxul nit booy wut dara doo yàkkamti waaw damay dégg ci Cheikh Hadj Malick Sy di suñu wajur di wax naan lu la lu la lu la lu la raay di may bu ko wutee pes waaw bu dee boo raayee jot li nga bëgg li nga bëgg defal ko defal loolu raayal ki ngay raay jël li ngay jël waaye pes jaru ko nga gis ni seen biir ñoom ixwaan muslimin dafa jaxasoo torop bari ay problème ñee tamit jàpp nañu ni bu intixaabaat amee mursi bu ñu bàyyee bunt yi mu ubbeeku ixwaan muslimin dugg du dañuy échec du ñu am dara loolu la ñu yaakaaroon ñoom mais bi élection yi amee nga gis ni ixwaan muslimin yitte biñ ci def ba jël pouvoir bi daf leen bett te ñi leen jiitu woon mais yàlla na ma yàlla baal mais ay alliés euh, Israël la ñu woon parce que maa ngi fàttaliku 2008 Israël bi muy sonal Palestine mais Maabar rafax dañu ne Moubarak na ko tijji pour ñu jël ay dons pour jaarale ko fa pour yóbbu dimbali euh, euh, euh, waa Palestine mais dafa bañ dafa ko toog na presque dix jour yoo xamante ne noonu la bàyyi noonu ubbiwu ko jullit ñu bari de mu door a ubbi mais loolu ñu koy tuddee sa mbokk jullit ñu koy rey ki koy rey gëm bokk leen diine bokk leen pas-pas nañ bëgg a jaar fii pour jox leen ay ndimbal nga de jaru ko parce que day mel ne kon damay sot mais looy sot yow kenn ko sot la wala koy ubbil rek. nga gis ni li ñu def euh, raisul marzul muy Mursi lu metti la parce que nag lii constitution nangu ko yaakaar naa ne euh, euh, professeur muy war na ci xam war na ci xam dara war nañ ci mën a gindi ci lu bëree bari parce que ñaari président ci benn yoon président boo xamante dañ ko fal par suffrage universel ñu voteel ko Mursi gagné ñu ragal ni bu gañee ixwaan muslimin am doole ñi ngi ragal wóor wóolu wóolu wóoluwuñu jullit ñi ñu fexe ba yëngal nguuram confisqué ko Sisi bi nga xamante ni moom la faloon wëlbatiku ñuy jaayanteeg moom mais lii mooy wor parce que moom déposé wul istiqaala waxul ni bàyyi naa kon mooy président waaye lu fa indi ar raisul muaqat mënul nekk confusion day am nga gis ni Euh, mbir la boo xamante ni suñu moytu la mu fay la mu fay jur mooy xarb euh, ahli bu mettee méttee métti yàlla na ci yàlla musal ndax tamit ñi ngi commencé nag di perte lu bari ñun jullit ñi iraq daanu na xaddafi rey nañ ko siri bachar asbaha jazaaran mu ngi rey nu mu ko neexee waaw léegi dam na ëpp na cent mille personnes ñiy rey te ñi muy rey ñëpp ay ay peuple am lay rey ndax benn nit jar na ko nit boo falee dem ba ne la bëggatu wóolatuma la mais bàyyil bàyyil nga gis ni kon euh, ci biir la loolu benn euh, passage la rek boo xamante mënuñu koon ñàkk tudd ndax fi réew mi toll ñuy wax tamit ci politique ak ni ko lislaam gisee nga gis ni ñoom li leen manqué mooy manage ñoom ixwaan yi dañu manqué manage parce que tamit dafa feeñ ci seen ci seen ci seen xitaab léeg-léeg daf ciy feeñ mu jar a bàyyi xel ci xaayidatu ba tey laa dara wala dira bul lore bul nangu ko la lor ci la yàlla waxee ni walakum fi lqisaasi xayatun yaa uli albaab tashiu aluqubat ala almaasi wal muxaalafat mu nekk mbir bu am solo parce que itam bakkan dafa fort dafa sacré léeg-léeg nga dégg loo xam dafay tiital ci biir société bi jam nañu nit ndax lan ndax portable bu mu yoroon jigéen romb na ñu këf saagam mu riposte ñu jëm ko paaka mu daanu dee am na fi ba tàyyi li ko waral lenn la mooy li ñu lislaam tënk dañ ko bañ bàyyi ko système bi yonent bi ñëw firi ko ne euh, euh, rey du fi jóg lu dul rey jële ko fi ñun ñu bañ te yàlla nee na ku ma reyal benn bakkan mi ngi mel ne reyal nga ma mu àdduna bi yëpp nit waxul jullit mais nit ñëpp nga rey reyoo nit ñëpp mais liñ liñ ci liñ ci liñ ciy déggee man li ma ci déggee mooy ubbi nga buntu rey ku jóg rey léegi parce que bu fekkee ni ku rey ñu yóbbu prison ñaari ñaari at ñetti at mais danaan baax na mën naa faj sama sama bëgg-bëgg sama bàkk sama bànneex li ma sant naa ko def rey ko te pour rey nit pour jël teraangam du la yokk dara du yokk sa teraanga nga gis ni tamit mbir mi dem na ba ëpp loxo doo gis mukk nit ni dinaa ko rey jaral na ma ñu rey ma ma rey ko déedéet doo ko dégg mukk jaral na ma rek ko tëdd kaso rek ngay dégg ndax kaso gën a sedd mais foo ko teg waaw dinaa ko rey jaral na ma rek ko tëdd kaso mais doone dinaa ko rey ñu rey ma doo ko dégg waaye bu fekkoon boo ko reyee ñu rey la kon rey jóg fi loolu la yàlla bëgg nag ku rey teg ko ci bakkan ak mbewte dañ la dañ la war a rey yàlla kenn ëpp ko yërmande ci jaam yi waaw ba tey ñu dugg ci euh, yeneen règle ti euh, nizaam as-siyaasi fi islam muy qaidatu al aslah aw al awla yanbagi ala zaim siyaasi an yacrifa al aslah fi kulli mansibin wa li macrifati dalik alayhi an yactamida ala ruknay al wilaya al quwatu wal amaana jaadu na ci euh, président bi wala njiit bi poste bu muy fal nit mu xam ka ca yell ak ka ca jaadu te li ko koy may mooy mu wéeru ci ñaar yi ñaari ponk la benn bi kattan la benn bi di confiance kattan bi nag buñ ko dee wax mooy al qudratu ala tanfidil ahkam mu xam ni muy jëfandikoo ak ni muy doxalee waaw tey fi mu toll nii euh, professeur Mounir boo ko bëggoon jox lu génn ci wàllu àtte ci wàllu magistrature wala ci wàllu constitution euh, droit droit constitutionnel da nga koy da nga koy sonal tey boo ko joxoon lu mel ni mbay mi wala leneen dëgg la doomu daara la mais li mu jàng dañ ko ko jox te moom lañ ko jox mu géré ko mais nit ñi pal yi dañ koy jaawale kilifa gi nag war na xam ki muy fal poste bi mu koy jox naka la waaye war na nattu ñaar yi ci moom kattanu doxal liñ ko dénk ak al amaana kattan bi mën na dellu ci al kafaatu wal xibra amaana gi war na mu ngi dellu ci euh, wal amaana tarjiu ila xashatillah bàyyi xa bàyyi yàlla xel ndax ndax liñ la dénk dangay gis nit toog tey ci postam ci biroom ñu jox ko téléphone mais xam nga kooku su mandoo warul jël téléphone di di ci woote ngir soxla boppam ngir soxla réew mi la ci war a woote yooyu yëpp islam daf koy bàyyi xel warul jël téléphone bi fu ko neex mu woote fa booy woo ay xarit ma ku ci am ku ci soxla appel dañ ñëwal sama bureau amul problème am na ci réew mi jaaduwul loolu yëpp da gis ni confiance mi ngi commencé maanaam kóolute mu ngi commencé manqué ci réew mi euh, boo xoolee ci nag euh, risaala bi nga xamante ni Ibnul Jawzi bind na ko ci as-siyaasa ash-shar'iyya ak lim ci wax mu ne njiit yu bari wala nguur yu bari dañuy àttewoo dañuy jëfandikoo seen xel ak seen bakkan teguñu ko ci xam-xam nag ba pare bëgg ko tuddee siyaasa te xamuñu ni as-siyaasa hiya sharia beneen bi ci topp muy qaidatu al amaanatu fil amwal les biens publics li ci dugg dafa yaatu jëm jëmm yeeg muy bor yeeg yu privé yi yu public yi ak raddul wadaa ak ndénkaane yi waqf fii ak mumtalakaat yeeg yëpp daf ciy dugg lépp loo xamante ni pour doomu aadama la ba ci ñi nga xamante ni euh, way laago yi ba ci jirim yi dañ leen war a sàmmal seen alal l'islam noonu la ko tëralee bu ci nekk rek tëral na ko bu ñu ci delloo daan ci gën a yaatu nga gis ni kon njiit bi li ko dénk yooyu yëpp te nga xamante ni société bi ñoo ko dénk ñoo ko ko dénk waru ko attee ci bakkanam wala ci bëgg-bëggam ndax moom ko dañ ko dénk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci xadis bu wér ni inni wallahi laa uti ahadan am na ahadan wa innama ana qaasimun adaau xaytu umirt man duma joxe duma xañ man daal soob na yàlla mu dafa may séddale te fi ma teg loolu rek lay teg kon nga gis ni njiit bi jaaduwul ci moom muy xàcc ay euh, njabootam maanaam moo ne njaboot nag mooy képp kuy sénégalais tey wala képp kuy égyptien wala képp kuy france ak fu mu mën a doon rek ki la yilif war na dafa war a yemale ba ci li nga xamante ni dafa jëm ci wàllu euh, maanaa li ñuy wax euh, al mashakil képp koo xamante ne dafa bokk ci yow te laal ci war nga bàyyi yoon àtte li war a àtte waaye njiit du làq ay nitam ñi bokkul ak ñi bokkul ak moom parti mu pousse pour yoon dal seen kaw du noonu ndax fa man jaarat qadiyatuhu daat raiyatu wa man daufat siyaasatuhu daufat riyaasatu képp ku jeng ci sa àtte sa njaboot sànku waaye képp koo xamante ni sa politique dafa faible sa pouvoir dana yonjax maanaam échec ci ngay jëm kon bokk inna al ummata al islaamia xatta yowmina hada mutamassikatun bi diiniha min ibadatin wa shaair wa axlaaq ba léegi nag fi ñu jaar yépp teewul jullit ñi am na ci ñoo xamante ni ñu gëm li ñu gëm lañu ñu gëm li ñu doon lañu sallallahu alayhi wa sallam ko seen fukki loxo waaye système politique bi nga xamante ni bu lislaam boo dee xool ni ko yom saa salaam bu njëkk ak léegi wuute na torop ndax yonent bi dafa fonkoon karaama tedd nga dafa fonkoon justice dafa fonkoon liberté dafa fonkoon concertation ci la tabaxee état wam état wam ci la ko la ko tëral nga gis ne ulama u tarbiya dafa am lu ñu wax dañuy wax ni jàng texte yi yomb na torop waaye li jafe ba àgg ci lool mooy appliquer mooy réaliser ñu wax ni fa taallumu sahlun lakin tatbiq saabun lil gaaya wal fashalu huwa nnaatiju alwaxidu ida lam taqtarin an nadariyatu bi tatbiq su fekkee ni théorie ak pratique ànduñu wala théorie ak bi muy joxe mooy échec idan fa maada yaa tura yajcalu linsaniyata fi asna rahin an tanjiwa mima tuaaniihi fi tabaddul alqiyam walmuthul allati bililtizaami biha tataxaqaqu insaniyatu insan wa def pour mën a delloo siwaat yooyu gannaaw bi nga xamante nit ñaa ngi sonn ndax jikko yaa ngi yàqu ñi ñu war a roy xamatuñ ñan lañu te ñu ngi fi di dund waaye am na ñoo xamante ni sopp na yàlla rek làmmiñ bu rëy ak mbubb bu yaatu tax na ñëpp topp leen ndax dañuy wax ni euh, dégg naa euh, sëriñ Babacar yi di ma ko xam ne ma dafa mës a waxtaan ak góor gi mu ne ko xelu sénégalais suuf su nangu la loo loo ci bay mu nangu muy lu yéeme ku jóg ñu topp la léegi. kenn xamatul ko kan nga war a roy pour nit nag mën a delloo siwaat waat tedd nga am bi nga xamante ni yàlla moo ko garantil pour nit delloo siwaat waat izzatoom bi nga xamante ni yàlla moo ko ndax ñaar la alkaramatu wal izza prestige bi nga xamante ni yàlla daf ko boole doomu aadama yépp ñépp a ci bokk yam parce que ni jullit bi di xëyee toppatoo njabootam di joxe dépense noonu la ko juif bi di defee donte bokk ñu li ñu gëm kon yàlla loolu yàlla moo ko moo ko garantir ndax nu xasam na baynahum maichatahum mais izza nag jullit koy am waaw gulwaar jullit bee koy am fa lillahi al izza wa li rasuli al izza wa lil muminina al izza idan fa man taamala fi suwar alquran yara fiha wala shak ayatin tucli qiimata alinsan ala hada alkaw ala hada alkawkab bu ñu xoolee ci alquran di nga gis ni kon yàlla am na fu mu teg doomu aadama ndax xalifaam la ci kaw suuf te jox na ko lépp ku lépp loo xamante nit soxla na ko ci kaw suuf jox na ko ko dénk na ko ko ngir mu yëwénal ko suuf ngir mu dundal ko suuf waaye nag ka xalifa nag waaw doo dox doo doxee sa doxinu bopp mais doxinu ki la yebal ngay doxe mooy yërmande yàlla ko am yërmande la yërmal jaam ñi yàlla ko maandu la maandul ci biir jaam ñi waaw moo tax ci alquran ci surat isra mi ngi wax ni wala qad karam naa bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr wa razaqnaahum min altayibaat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila innama nafhamuhu fi hadihi al aya huwa an allaha damina alkaramata walizat li bani albashari jamian falkaramatu laysat xikran li jinsi min al ajnaas aw li qabilatin min alqabail aw li shaab min alshuub karama prestige yàlla moo ko garanti kon pour doomu aadama waxul mu'min bi de waaye annaas la wax bani aadam ñëpp dugg du pour benn waaso wala benn peuple wala benn xeet pour ñëpp la te loolu it la ñuy déggee ba tey ci alquran li mu wax ni ya ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu nga gis ni subhanahu wa taala qad asnada alxalqa wal jaala ila datihi taala moom moo féetale boppam ne maa bind maa jëf wa asnada ilayna nahnu al bashar at taaruf mu jël ñun féetale ñu xamante bi waxuñu xamante nag euh, cheikh si munir nangam déedéet waxul xamante boobu yéen kat ay mbokk ngeen déedéet dafa ni xamante jëriñante ëpp na pénc xamante àdduna la wax ashuub inna jaxlakum shuuban wa qabail la wax loolu su amee pour lan li taxqiqi al uxwa al insaniya pour dëggal bokk ak doomu aadama wa istithmaari al qudrati al aqliya wal fikriya wal jasadiya lima fihi nafcu al bashariyati jamaa pour nit mën a jariñu ci xel ci kàttan ci xalaat ci lépp ñu bokk ko boole pour mën a yéwénal àdduna waxul rek penc waaye aaya ji ëmb na àdduna lépp inna nidaam al islaami nidaamun mutamayizun bi qiyamihi wa nadaraatihi wa axlaaqihi wa aadaatihi wa taqaalidi wa tashriaati nidaamun laa mathila la maftuuxun li kulli lbashari an yadxula fiihi li annahu nidaamu lxaqi alladi laa xaq gayru inna tamayuzana laysa caaran li annahu tamayuzu lxaq wa innama alcaaru cinda alladina laa yaqbanu lxaq wala yadxuluuna fi ma daxalna fiih fa yusbixuuna minna wa fiina inna ahla albaatili hum alladina yucayiruun amma naxnu fa bihuda allahi nactaz wa bilxaqi alladi anzalahu alayna naftaxir kon boog fa maada bacda alxaq illa dalal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu barakallah barakallah la fudda fuuka wala shullat yadaaka wala yazaalu zikruka inda annaasi marfuuca tabaarakallah Sidi Ahmed Tijani defal nañu exposé bu brillant ci système politique islamique entre théorie et réalisation xam naa pour tënk ko du ko xaw a jaar sax xanaa ci ñaari minute rek ñu jox kilifa yi suñ Mansour kàddu gi mu tëj jataay bi defal ñaan surtout way juru soxna faatu Sarr Sow sociologue bi fi defoon cours bi bërki démb muy cours bu am solo yaayam dafa dawlu bu ñu paree jox sëñ Mansour mu defalaale ko ñaan te tëj jataay bi sëriñ Cheikh indil nañu ci waxtaan bi système politique yi nga xam ne ñoo jiitu l'islam wane ne am na yu fi jotoon a nekk xam nga boo seetloo ca grec yeeg ca égyptien égypte antique ak ci ñeneen ak ñeneen ñëpp amoon nañu système politique waaye l'islam bi mu dikkee dafa teg yooyu suñ Cheikh indi na fondement yi fondamentaux yi nga xam ne nii moo caractériser la pensée politique wala le système politique de l'islam bi ci njëkk wan nañu ne alxaakimiyatu lillah wan nañu ne système politique la boo xam ne nii yàlla rek moo moom nguur gi keneen moomu ko wax na ko léegi qul illahuma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wax nañu ko moo moo tax mu ne nizam rabbaani la maanaam dafay système boo xam ne nii dafa yàlla xam nga tubaab yi daanañ tudd monarchie mooy nguur gi nga xam ne nii pour kenn la di tudd plutocratie mooy nguur gi nga xam ne nii ñi am alal ñooy jiite di tudd gérontocratie muy nguur goo xam ne nii ña mag ñooy jiite ñu tudd démocratie bi ñu tuddee démocratie mooy nguur goo xam ne nii peuple bi ñooy tànn ñu wax ne c'est le moins mauvais système politique Winston Churchill moo ko waxoon defe na muy premier ministre bu nekkoon Grande-Bretagne waaye gis nga lislaam moom nguur gi yàlla la koy delloo parce que même démocratie boobu ñu ne majorité moo am dëgg pour lislaam minorité amul dëgg majorité amul dëgg yàlla moo am dëgg moo tax yàlla mooy majorité moo tax démocratie noonu la ko l'islam di déggee xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sulhul hudaybiya bu fekkoon ne nii démocratie rek lañ doon doxal mu topp saxaaba yi ndax ñoom am na lu ñu bëggoon moom muy déglu baat bi ci kaw bi nit ñi insister mu ne leen inni nabiyullah inni rasulullah laa aasihi wa huwa nasiri mu ne leen nag baat bi ci kaw laay déglu boobu moom ma war a orienté moo tax sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si wax ne te sëriñ Cheikh wax na ko léegi ne suñu référence muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que bi xaakimiya amee te mooy yàlla rek moo am pouvoir beneen principe bi sëriñ Cheikh tudd na ko mooy al istixlaaf istixlaaf mooy ki yore nguur mu xam ne dañ koo dénk yàlla mi ci kaw moom la wuutu pour doxalal ko namu namam ci jaam yi kon dañ koo dénk moo tax sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa dikkee dafay créer système politique ak système économique boo xam ne ni jàng amu ca wata addabat dinaaru rafdan liir riba wa taraajaca albatshu alzalumu kamina asxaabuhu ahzaabuhu hum qawmuhu lam yaqbalu bi sufufihim qaaruna maanaam dafa bu dee système économique bi yonent bi sallallahu alayhi tëral fexe na ba waxuma la ñoom ñooy éviter riba mais riba moo leen di daw parce que riba du dara lu dul système boo xam ne nii ñi am dana noot ñi amul mu ne waaye système politique ba tamit war a raaja al batshu zalumu kamina tëral na système politique boo xam ne nii tooñ amu ci Sëriñ Cheikh wax na léegi ne te am na ku ko wax nee na nguur mën nañ koo tabax ci kufru waaye kenn mënul tabax ci nguur nguur ci tooñ xad yum na al mulku ala ala al kufr walakin laa yum na al mulku ala al zulm ndax yàlla nanguwu ko moo tax beneen principe bi mooy al adl te mooy justice sociale wax na ko fokk mu am ci principe yi la bokk beneen principe bi tudd na ko mooy ashura bokk na ci principe yi nga xam ne nii tamit ci principe bu système politique islamique la bokk bi ko mujjee mooy attaa muy topp gi nga xam ne nii moom la ñi nga xam ne nii ñoom lañ yilif war a topp ñu leen jiite. su ko defee nag euh, sëriñ Cheikh dafay wax ne lu tax théorie bi bi ko sëriñ Cheikh waxee ba léegi ak ni mu ko leeralee macha allah ak euh, exposé bi ni mu leere ak xam bi ni mu xóotee lu tax nag ñuy am jafe ci mën a appliquer ak réaliser lu mel noonu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane dafa ne. Serigne Babacar Sy nee na la réussite d'une théorie dépend de quatre éléments essentiels le théoricien qui il est les adeptes de la théorie l'époque et l'environnement immédiat de la théorie nee na ñeent yooyu s'il y a fausse note dans dans dans dans ce dans ce concert de conditionnement nee na échec moo ciy topp nee na d'abord théorie bi war nañoo xam mooy lan nit ñi nga xam ne ñoo gëm théorie bi ñooy ñan jamono ji nga xam ne ni ci lañ bëgg a appliquer théorie bi mooy jan jamono environnement bi nga xam ne ni ci lañ ko bëgg a mooy ban environnement nee na ñeent yi bu ko ku ko peegul soo bëggee appliquer théorie bi mu dem théorie bi nag xam nañ ko wax na ko nee na source ñaari source la am alxuraan ak sunna kon leer na kooku du juum te adepte yi nag mooy ñan mooy ñun nañu natt suñ bopp nag sëñ Moussa nag nee na woon al islam bayna ajizi daaxil wa kaydil xaarij ñetteel bi mu ne mooy jamono ji ñu xam ne jamono jii ñu nekk jamono la joo xam ne système politique bi l'islam proposé c'est un système fortement concurrencé ci système bu mondialisation lañ nekk ku nekk ak ni nga gisee ku nekk ak li nga bëgg a tëral environnement immédiat bi ñu nekk tamit ñu xam ne c'est un environnement hostile kon nag loolu limuy muy tekki mooy jullit yi pour bu ñu bëggee le triomphe de l'islam ak les le triomphe des idéaux de lislaam dafa laajaat beneen taxawaay boo xam ne nii bu mag a mag lay doon kon tabarakallah sëriñ Cheikh euh, comité scientifique bépp ñu ngi lay sant ci sa exposé bu am solo bii nga xam ne nii moom nga def xam naa di santaat bu baax a baax a baax mbokk yu tedd yi nga xam ne nii ñoom nga àndal waxoon nañ ko limoon nañ ko xëy na sëñ Mansour Sarr dana jël kàddu ñu ngi fi wax tamit euh, teewaayu le député Cheikh Ahmed Tidiane Diouf ànd ak une forte délégation di wax tamit teewaayu euh, soxna yaa sofi ah waaw ñuy wax ne tamit ca Tiwaawan soxna yaay Sophie bu maam Abdoul si Sy ngay dimbale bu baax mbokki taaliba ya fa nekk ci wàllu ndogu yeeg yëpp yàlla yàlla fay ko yiw di ko defal sëriñ bi bu ko defee tamit euh, ñu ngi ñuy wax ne suba incha allah mooy journée nationale des cadets cadets yi nga xam ne nii ñoo nekk ci daayira bi ak ñu ngi ko bokkal ci waa réew mi ñëpp incha allah fas yéene nañ fee teew di fi def ay concours ci wàllu alquran di fi ay concours ci wàllu xam-xam ak yeneen yu demee yu demee ne bu defee ñuy ñaan mbokk yëpp ku ko sa jot may rek nga teew fi encore une fois ñuy remercier Serigne Cheikh ci waxtaan bi di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla yokk ko wér te defal ko tawfiq su ko defee dañuy delloo kàddu gi sëriñ Mansour moom mu waaw sëriñ Cheikh mu ne moom it mi ngi sant bu baax a baax a baax daayira bi te ka jiitu ci bopp bi mooy sëriñ Moustapha Sy di soppeem nee na mi ngi koy sant bu baax a baax a baax ci tànn gi nga xam ne nii moom lañ ko tànn pour mu def waxtaan wi waaye tamit nag ah tey nal kaw sa baariha waaw dafa mel ne li arab yi wax rek yaa baariyal xawsi bariyan laysa yuxsinuha laa tufsidul xawsa xaw sa baariha arab yi dañ ne fett da koy jox dëgg dëgg dëgg ki ko mën a raw mu mën koo raw ki ko mën a yett dëgg dëgg nga koy jox mu yett ko yettin boo xam ne nii buñ ko utiliser daañu xam ne lii fett piir la kon nag tabaarakallaahu tànn gi dafa nekk tànn goo xam ne nii gu tegu la ci yoon kon nag yàlla yàlla gën a dëgëral la gën a yokk xam-xam bi gën a yokk sa leeru dënn dañuy jox rek sëñ Mansour kàddu gi ko defee mu tëj jataay bi joxe ñaan yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.